kooku yëkkati kàddu ñu koy wax Omar Sall mu jëmale ko ci tudd tiijaan yi ni ñuy defe seeni wasifa mooy xaddatul jumaa wala ñu koy defe wasifa niñ koy defee di ko tudd ci jàkka yi suñu toogee ci mbalaan mi loolu mu ci wax ba ay plainte am ci ba mu dem ci wàllu yoon ba fi mu toll nii may nañ ko liberté provisoire gannaaw loolu dégg nañu moom ni mu waxee dégg nañu it ay nitam ni ñu waxee waaye ñun yàlla dogal na ni ay taalibe Cheikh Sidi Ahmada Tidiane Chérif lañu bokk ci ay mbooloo yu baree baree bari yaakaar tariqa bi waaye tariqa bi ñu bokk tariqa sharia la tariqa sunna la Cheikh Sidi Ahmada Tidiane Chérif dafa waxoon ni bu ngeen déggoo dara isa samitumu anni fa ziinuhu bi misaani sharia fa maa waafaqa fa xuzuuhu wa maa xaalafa fatrukuuhu Cheikh Ahmada Tidiane dañu woon bu ngeen déggee benn wax ñu ni man Cheikh maa ko wax ci man la jugee mu ni na ngeen ma ko tegal ci balaasu sharia bu tolloo ak moom maa ko wax na ngeen ma ko tegal ci balaasu sunna bu tolloo ak moom moo ko wax kon tariqa bi tariqa sharia la tariqa sunna la tariqa rasulullahi la tariqa yàlla la képp koo xam nag wax nga ci dara Cheikh Seydi Ahmada Tidiane ma nga tëdd ca Faas Cheikh Seydil Hadji Malick radiyallahu anhu mu ngi fii ci Tiwaawan ñun ay taalibe lañu yoo xam ne ci kër gi lañu aju gëm diina ji gëm tariqa bi. doon ay ndaw dëkk ci réew ñi comme ñoom niñ fi dëkkee lépp loo xam ne ñu ngi koy wax ñoom nañ ci génne suñu tariqa yi nañ ci génne suñuy askar nañ ci génne suñuy gàmm nañ ci génne suñuy ziar nañ ci génne suñuy wasifa nañ ci génne suñuy xaddatu juma ndax bu ñu demee ba egg ci loolu jàpp ni mënuñu ko faj mën nañ ko faj ak beneen façon façon biñ koy defee ñun mën nañ ko faje noonu waaye nag ci gàttal ñu ngi ñaan képp koo xam ni li ñu gëm ñun ko. yoon wi ñu jaar jaaroo ci li ñuy def defoo ko nang ci maandu loolu la yàlla santaane. Mounirou dafa am lu indi problème xam nga lan mooy dafa am ñoo xam ne magu Sénégal ñoo leen di déranger soo seetloo yii ngay dégg ñu koy wax ñoom su gàmmu jàllee lañ koy wax su gàmmu jàllee ba buur di tàmbali. fukki fan ak ñaar yoo xam ni Cheikh Seydil Hadji Malick organisé na ko Sénégal ba mu lëmbe àdduna bi xam nga luy lëmbe àdduna bi tagg yonent bi ak julli loolu rek mooy am amul leneen tagg rasulilah julli ci yonent bi bu loolu jàllee samedi dimanche yi àjjuma yi àllarba yi alxamis yi Seex Seydul Xaaji Maalik fexe na ba jawwu Sénégal di di ci julli ci rasulilah jawwu Sénégal di tagg rasulilah yi foofu nag buñ ca eggee ci la seen xol yi di laaje ñu jàpp ni ñoom diina ji dafa ne ci ay loxo yu dul ñoom ñoom ñii di wax tuuti nañ ci tuuti nañ ci jëlee xolu nit ñi ci Seydi Xaaji Maalik tuuti nañ ci. ñi gëm Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Chérif ñoom tuuti nañ ci seen xol yi bàyyi Cheikh Sidi Ahmed Tidiane tuuti nañ ci kon li ñuy ñaan mooy mag ñi benn lañu magi tariqa yi ci réew mi benn lañu waaye ñi fi ñëw mooy ñoo xam ni gëmuñu benn tariqa ñoo fi nekk pour bëgg ñi gëm tariqa yi ñu dévier leen pour ñu bàyyi tariqa yi dem loolu nag mënta nekk ñi gëm tariqa yi gëm nañ ko pare ñoom ñooy alku ñooy alku ñooy torox ñooy dem ba torox ba dee waaye du tee ñun ñu bàyyi gëm suñu tariqa yi incha allah. dégg nañu sax am nañ dem nañ ba ñi mu àndal ñu naan sunna yëkkatiku tijaan wàcc tijaan muy sunna aynu shariati wal xaqiqati innahu yahdil murida li xaalis al adyaani jëmmi sharia moo doon Seex Seydi Hajji Maalik jëmmi sunna moo doon Cheikh Seydou Hadj Malick leen la fi nekkoon mooy yahdil murida li xaalisil adyaani Cheikh Seydou Hadj Malick taalibe yi ko toppoon da leen a jëmale ci diine ji gën a sell la leen jëmale diine ju sell mooy julli waxtu juróom ci jàkka ja yor seen kurus di tudd yàlla di zikkar fonk seen i wéjur ku ñu tare dimbali la waaye jël sa làmmiñ di boyal wax naa ni ñoom ñii di wax du ñu jullit yonente bi moo waxoon ne al muslimu man salimal muslimuna min lisaani wa yadihi nee na jullit pur mooy ki nga xam ne muccal na julliti ci làmmeñ làmmeñam ak loxoom waaye yow saa yoo waxee yaa ngi attaqué julliti saa yoo waxee yaa ngi attaqué tijaani yow an sa jullit sa làmmeñ nga yor waaye leer nañ ñu ñoom buñ ñu ëppoon suñu kaw lañ jëm waaye yàlla dogal nañ duñ ñu ëpp ci réew mi ba yomal xiyam ndax li fi mag ñi def def nañ ko fi ba nit ñi seen i xel ubbeeku seen i bët leer ba ñu xam ni mag ñii ci sunna lañ leen jëmale ak ci charia ñu topp leen tariqa tijaan tariqa jàmm la woote wuñu ay woote wuñu fitna dañoo dem ba egg sax ni tijaan yi bu ngeen leen waxee dara duñ la dóor duñ la dóor dañuy wax rek loolu la ñuy wax parce que nit ay nitu jàmm lañ woote ay pour bëgg dem fekk benn nit pour dóor ko wala ñu sibile benn nit suñu newu ci ñoom ñuy wax seen i na ñuy def seen i na ñuy wax seen wax fekk laaluñu tariqa bi duñ dal seen kaw. feek laaluñu li ñu bokk muy diine jëkk alquran duñ dal seen kaw waaye Sénégal bu fekkee dañ fii laaj diine ak charia ak alquran ak sunna ñoom duñ leen ko laaj ndax ñoom ay nit lañ yoo xam ne dañ leen a former rek pour ñu ñëw ci Sénégal di wax di tappale bëgg a dévier ñu fi nekk te duñ fi jóg kon ci jàmm lañ leen di woo jàmm ji mooy nañu gëm ñoom li ñu nekk te bàyyi ñun ñu gëm li ñu nekk suñ ko defee jàmm am suñu diggante duñ leen tudd duñu tudd loolu rek la ñuy woote woote leneen